génn waaw waaw waaw xam naa sax groupe whatsapp bu mbokkoon fii waaw ci groupe whatsapp moom moo créé woon boobu am na ñu ci bokkoon fii ma ne naa leen na ngeen def très attention alkaati la kon suñ borom bëggul kuy tasaare wax ju bon baaxul wax ju ñaaw kenn du ko tasaare wax ju rafet la ñuy tasaare waaye wax ju ñaaw kenn du ko tasaare image bu ñaaw kenn du ko tasaare fekk nit ci biir néegam bett ko foto ko wala naxtaan ko be foto ko génne ko ne ci wàtt ci internet bi ñëpp ak Facebook ñëpp di ko gis loolu nañ ko ba du yiw du yiw ñaaw na ba mu ëpp weer gor weer gor rekk te yonent bi ne ku xaw yi sutural nit fii yàlla dana xaw yi sa sutura ëllëg mu ne ku suturaal nit fii yàlla dina la suturaal ëllëg yàlla na ko yàlla yërëm li Abdou Latif Guèye daan wax nee na foo tourné naan tey ala in kan la mu ne kër buñ lay ala in du la neex moo tax ñu jeexal walaw laa is sami'tumuhu moo ci topp waaw kañ suñu borom a ngi femmuwaat sayyidatuna Aïcha moo bari daraja mu ne walaw laa donte is jamono ba nga xamee ni sami'tumuhu dégg ngeen wax ji qultum ngeen wax ni maa déet ah yakunu di nekk lanaa ñeel ñu an natakallama an be baat bu nekk ak pirim la walawlaa laa doonte is jamono ba nga xamee ne sami'tumuhu dégg ngeen wax ji qultum ngeen wax ne maa li mbir tey mbir li wérte wóor mooy lana ñeelul ñu an nataka an be natakallama ñuy wax bi haza ci wax ji man de lii duma ci wax yàlla daal nee na lu tee ba ngeen déggee wax ji nga ne man de duma ci wax sama yoon nekku ci bu ñëpp defoon noonu wax ji du sori xamoon yàlla ne de wax joo déggati nag muy ñëw fii ak suba defal noonu neel duma ci mosa ŋaang loolu lay firi rek neel duma ci mosa ŋaang wax jii daal duma ci wax ngeen ne an natakallama an be natakallama du ñu wax bi haada ci wax ji subhaanaka tudd naa selluk buur bi ndax soxna yonent bi mu doon sayyidatuna Aïcha moo bari daraja subhaanaka tudd naa sellu buur bi ma wax ci lii ndax kii ñu koy wax soxna yónnant bi la haza lii ngeen teg ce ne haza lii nga ma indil wax ji buxtaanun aw nar la sos la azimun bu mag xam nga ku ñëwoon di wax ak yow nii nga fem moo ko nii wax ji du sori haada lii buxtaanun aw nar la aw sos la azimun bu mag fa yàlla yaisukum yàlla ne maa ngi leen di waar hmm, yàlla baax yaisukum maa ngi leen di delluloo ginnaaw yaisukum maa ngi leen di jàjj an be taawudu ngeen bañetee dellu bi mislihi ci wax ju tollooti nii bu leen ko defati abadan faw boo demee ci biir tafsir bi xam nga nu mu firee abadan waaye boo demee ci ibnu kasir def ko dajjati moom kii dafa ne abadan mu ngi mel ni nga jàll asamaan ak suuf sànqa te diggante asamaan ak suuf doxu juróomi téeméeri at la 500 ans ci waruwaay wi gën a gaaw mu ne nga jàll ko sànqal ba mu fees jël benn sànqa sànni ko ci biir ne ko del jël benn pepp di teg fële ba ba muy jeex ne na loolooy abadan boroom téere bi nag dafa ne fu koy teg moo ma njëkk a jaaxal ndax suuf fees na <laughs> moom loolu la wax moom bi mu layee dafa ne fu mu koy teg moom a njëkk a jaaxal ndax suuf fees na dafa ne nga jël suuf yëpp ba mu fees ba ca asamaan nga jël benn melentaan sànqalañ tëmbal ko ci biir ne ko del jël par benn pepp nag di roñ di yóbbu ba muy jeex ne na loolooy abadan ibnu kasir dajjati ko ne yàlla am na feneen fu dul suuf te benn booy roñ lum yàgg-yàgg dana mos a jeex moom foofu la ko teg te wax na dëgg yow matu baddalul ard la jëli gayral ard wa samawaatu wa barazu lillahi alwahidi alqahar mu ne yàlla am na feneen fu dut foofa foofa lay yóbbu sànqaleñ bi teg ko fa muy ñëw di jël par benn di yóbbu te kon bu yàggee mu jeex ñu ne ko kon luy abadan mu ne abadan yàlla rek ko ko xam mooy faw booboo gën a wér yàlla nag mise à la def mu ne bu ma leen déggati bu ma leen gisati ci wax ju mel nii abadan faw mooy bu mu amati xam nga mu ngi mel ni président xëy rek xool gaay bi ne eh, bu mu amati de xam nga président bu ne soldaar yi bu mu amati kenn dina ko def maa ko gis ak sama bët nag président bu Tchad bi Idriss Déby maa ko gis man de dañ ma ko woon waaw kañ kii gis na ko bon dafa xëy rek taal otoom àndul ak benn garde dugg ci otoom moo dawalal boppam ndax boobu dafa dégg ne éco poor bi corruption bi daf ci bari te gaa yi renseignement yi ñu koy indil yëpp du dëgg mu taalal boppam otoom ne dagaj ci biir poor bi ñu bari di liggéey foofu te waruñ fa liggéey mu ne dagaj ci poor bi ñëpp tiit moom xamul chef bi mu ne ana chef bi mu ñëw mu ne yéen policiers yi rang leen policiers yi rang douaniers yi rang leen mu rang mu ne corruption bi ma fiy dégg lépp dégg la ba ma ñëwee ba tey maa ngi gis jigéen ñi doon ñëw ci port bi di njuuj njaaj mu ne leen yéen taxawee leen nii moo jàppal boppam sàcc si jigéen ñi taxaw nii soldaar yi rang policiers yi rang douaniers yi rang ñëpp rang mu taxaw na leen yéen ay sàcc ngeen xas leen bañ rab ne leen gis ngeen ni ma fi ñëwee tey ana chef bi cheikh bi di nëbbatu gars yi naan benn benn xotti ko mu ne ko yow laay wax dinaa fi ñëwaat d'ici quelque mois te du ma wax ban bés laa fiy ñëwaat nii ma def laay def or désordre bi fi nekk laa bëgg mu jeex na fi ordre am bu fi sàcc amati bu fi corruption am dinaa fi ñëwaat nag daal ne am na chefu police bi moom it muy làqatu génn si mu ne ko yow tamit police bi noonu laa bëgg nga def delloo si leen dans l'ordre ñoom ñëpp ne leen bu mu amati nag dalli di naa eh yéen jigéen ñi yéen lu ngeen fii def ah yéen lañ wax ne yéen a fiy ñëw ni njuuj njaaj ak a sàcc génn leen ci biti wala ma tëj leen ñoom ñëpp ñu yolos yolos yolos yolos yolos génn ba jeex mais président yëpp bu ñu doon def noonu jàmm am sow mii toog moo daan ànd ak Senghor sow bii toog baal ma rek moo daan ànd ak Senghor sow nekkoon garde rapproché bu Senghor bari na R4 boo dégg Senghor dugg na ci ñoom ñaara ànd sow mi Ibrahima sow bi moom mii nee na keroog ba ñuy dem du Japon nga waxoon ñu ne Senghor bul génn mu ni naa génn ñoom ñu tëdd ci bunt bi rang pour bañ Senghor génn nee na jéggi na leen ñoom ñëpp dem ndoxi soxlaam te kenn yëgu ko moom moom sow bi te nee na boobu dañ tëdd ci bunt bi bañ Senghor génn jéggi na leen dem ndoxi ay soxlaam te kenn yëgu ko président da ngay vigilance bañ a nekk rek climatiseur yi di la upp ngay lekk laax di lekk michu yi di lekk saucisson non non génn defal sa bopp eh, eh, nekkal sa bopp inspecteur def ay investigation ni ko Seydina Omar daan defe kon ngeen baal ma ñu tëj suñu heure a ngi jot su ko defee alaaji tàll yal nañu yàlla defal sutura waaye réew neex naa defar réew ak a neex a defar dañ ko bëggul defar rek waaye suñ ko bëggoon defar ak a neex yal nañu yàlla dimbale rek moo tax nag suñ borom ni in kun wa huwa ah? waaw abadan waaw kañ mu ne an taudu bu leen dellooti li mislihi ci lu mel nii abadan faw in kuntum dem nekk ngeen nag mu'minina di ñu gëm yàlla gis nga wax bi nag mooy tax du fi jóg su fekkoon dafa yem ci abadan ji rek kenn dootu ko def waaye yàlla dafa bëgg ñu am liberté moo tax mu ne in kuntum mu'minina yaay seet nag ndax jullit nga nga génnee ci sa bopp soo nekkee ci yenn yi rek seetaatal sa njullit waaw parce que yàlla forcé walla de daf la ne bu dee jullit nga bul defati lu mel nii boo dul jullit nag defal lu la neex ba dajeeg man ma def lu ma neex man faala ma shaa laqiya man faala ma shaa laqiya ma saa man képp koo xam ne faala def na ma loo xam ne shaa soob na ko laqiya dana dëjeeg borom bi mu def ko maa loo xam ne saa dana bon ca moom gis nga ñaar yi du benn shaa ak saa moo tax suñ borom ne bu leen ko defati mukk nangeen ko bàyyi baaxul lu bon la na ngeen tuub bu fekkee jullit ngeen te bàyyi wax jii bu leen ci delluwaat in kuntum dem nekk ngeen mu'minina di way gëm yàlla way yu bayyinu leer na de du foofu la way yu bayyinu leeral na allahu buur yàlla lakum ñeen leen ayaatihi alxuraanam ji ak kéemtaanam yi yàlla ne na leer na ci yéen naññ wallahu buur yàlla alimun mooy aji xamaakoon ji xakiimun moo xereñ ci bindam bi ba bind lu ko neex inna alladina naka gaañi nga xam ne yuhibbuna dañoo bëgg rek an tashia di tasaare suratu <laughs> nuur yonent bi lim ci wax yëpp dëgg suñ borom ne inna alladina naka gaañi nga xam ne yuhibbuna dañoo bëgg an be tashiya ñuy tasaare ci facebook yi di tasaare ci internet bi di tasaare ci réseaux sociaux yi faahishatan ay kàccoor ak i mbon mbon rek ah yàlla ne loolu neexuma de hmm? lu ca topp eh, gis nga ko fi lazina amanu ci biir ñi gëm yàlla fekk gor su toog nga di ko niit di ko niit ngir weer ko fekk gor su toog ngay waxtaan ak moom ni yaa ngi koy enregistré fekk gor su toog yaa ko cuq bëgg mu wax nga enregistré ko filmer ko dóor ko ci Facebook bi dóor ko ci réseau sociaux yi yàlla ne yaa bon ndax boo ko ñëwutoon approché ko du am soo ko cuquloon ci wax du am waaye moom it ba nga ko cuqee bu noppi woon du am ah, jeex na ñaari faute yëpp danga koy génne moom it ba nga ko cuqee bu tàkkutoon déplacement oto du am waaye moo cuq mu tàkk ñu puus mu dem ah jeex na ah moo tax nag suñ borom ne maa ngi leen di dënk ne ngeen bàyyi ko baaxut gaa ñi nga xam ne bëgg seen bëgg-bëgg ak seen namm-namm mooy di tasaare lu bon ci réseaux sociaux yi war nañu dégg lii lu ca topp yàlla ne képp ku koy def loo jot ne ko fang ci réseaux sociaux yi loo jot ne ko fang ci Facebook ñaaw téef rek ngay publier suñ borom ne ki dëkkee di def lii ah lu mu ca teg lahum ñeel na leen waxul laka de ña koy def la wax ñoom ñëpp suñ borom nee na lahum ñeel na leen azabun mbugal alimun bu métti fi dunyee ci àddina njëkk xam nga lu tax daañ la pamti pamte yóbbu la fële ñuy wax cent mètres rëq sa ndigg toroxal la wax ne yow mii yaa ko daan def ba noppi nag yàlla ne maa ngi lay xaar ak rëq sa ndigg fii ci àllaaxira moo tax mu ne lahum ñeel na leen ñoom ñi koy def azabun mbugal moo xam ne alimun bu métti la fi dunya ci àddina wallaaxirati ak ëllëg ca bés penc muy àllaaxira fii ci àddina borom téere bi ne na torox tàng bi leen di xaar mooy yàlla dana leen toroxal ñoom itam dana leen weer fii boo ëllëgee mu tàbbal leen safara su fekkee tuubuñ ku tuub yàlla baal la waaye xam nga lu tax publier lu bon bon soo ko tuubee it foog nga tuubaat publier waat lu baax idfa billati ma suñ journaliste yi kenn gënu leen dugg waaw cent franc nga tas ci këri jàmbur wax na dëgg journal buy jël cent franc nga publier ca loo xam ne tas na dëkk dégg nga wax bi moo tax nag yàlla wax ak ñoom balaa ngay publier dara na nga ko xam boo ko xamee te baaxut bu ko publier yàlla na nag boo ko publier yow mi ko publier mu ne fii ci àddina dinaa la toroxal ba ñëpp teg ci seen bët mu ne ëllëg ci àllaaxira nag ma dugal la biir jahannama waaye yàlla baax lu mu ca teg xam nga lu ta mu ne allahu buur yàlla wallahu buur yàlla géñ naa ne buur yàlla waaw bi waawu xasam na wallahu géñ naa ne buur yàlla moom dong kot rek yàlla mu moo xam waantum yéen ñii toog di xam-xam lu laa taalamu na xamu leen daal yàlla ne yéen ñi fi nekk ñëpp tey ay mbindeef jàpp ne xam ngeen xamu leen tus géñ naa ne man yàlla rek maa xam moo tax boo demee ci laayee jële la ko gën a leeral wa ase an tuhibbu shay'an wa huwa xayrun la xayr wa ase an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa ase an tukrahu shay'an wa huwa xayrun lakum lu tax wallahu yaalamu wa antum la taalamun suñ borom ne wa asa bari na an tukrahu ngeen di bañ shay'an mel ni mbir wa huwa moom mbir moomu ngeen di bañ xayrun lakum moo gën ci yéen ah waase an tuhibbu shay'an bari na looy bëgg yàlla ne wa huwa sharrun lakum loolu lu bon ci yow na waaye waase bari na loo xam ne tukrahu ngeen di bañ shay'an aflas as mbir fekk la ngeen di bañ wa huwa moom loola xayrun moo gën lakum ci yéen ñu ne ko lu tax mu ne wallaahu bur yàlla giñ naa ne man yàlla yaalamu moo xam wa antum yéen laa taalamuuna xamu leen li baax ci yéen ak li bon ci yéen man yàlla mi xam li baax ci yéen ak li bon ci yéen maa koy diri jaarale ko fi ma neex te yàlla nag tuuli yu lay la fi nehir wa tuuli yu nahaara fi layl mooy rocc di dugal fu ko neex lay roccee dugal fu kenn yaakaarul yàlla mën na fa génnee yiw foo yaakaar yiw yàlla mën na la fa bettee safaan ah bani israil kañ niir wa alayhimul xamaama dafa tàng jër yàlla nattu leen tàngaay wu tàng jër bani Israël mu jëkki jékki rek keral leen benn niir wu sedd guy ñoom ñëpp ñu bàbbeeku dem ca niir wa ne alhamdulillahi rabbil alamin xoolal niir wi ni mu seddee niir wu jékki-jékki rek soppeeku safara di taw ci seen kaw yàlla lu ne la ma ni inna wala kulli shay ñewent ak yërëm du benn raouf mooy ñewent xam nga luy ñewent baatu wolof la ñeent mooy bëggoo sax mu tibb tibb bu tàng ndax da koy lakk bëggoo mu sex ñam wu tàng ataaya sax bëggoo mu naan ko mu tàng danga bëgg mu nugg ci moom ba bañ a lakk làmmiñam looluy raouf ñewanti nit ba bëggoo sax mu tibb tibb bu tàng yàlla bëggul sax ñun ñu tibb tibb bu tàng moo tax yonent bi nee na lekk ñam ñamu tàng baaxut ci ñamu safara yi la bokk bàyyi leen ko ba mën koo lekk ngeen lekk ko ndax yàlla bëggu ko ci yéen raouf moo gën a foor raxiim moo tax mu jiital ko yàlla raouf la waaye rahim la waaw dafa dafa am ci ñun ñewent ba pare nag yërëm ñu ñi ngeen xam ne da ngeen gëm yàlla bokk ci daayiratul iman laata tattabi'u bu leen topp mukk xutuwaati seytaan ñellu seytaane yi ñell seytaane amul yoon ay ñell la am ñell mooy xàlloo jëm nga gis yeneen yoon yu sew yooyu teggi yoonu saawo buñ ne nee saawo nag jeexal na wax mooy luy saaw yi rek luy tasaaroo ji réer ah waaw kañ moo tax mu ne yéen ñi gëm yàlla nag na ngeen topp yàlla te bañ topp ñallu seytaane mu ne waman képp koo xam ne yabit yattabi topp na xutwaati seytaan ñell seytaane yooyu fa innahu lii mbir tey mbir li wër te mooy na xam ne yaamuru du noonu yaamuru day digle bil fahshaa i ci kàccoor ak def lu bon wal munkari ak lu ñu sib lu bon foo fekk suñ borom ne kuy publier ak ay dëgg kuy publier lu ñaaw fu mu toll lii mooy méccam moom moom moom moom lii nee na lu bon lay digle di tere lu baax xam nga am na ñoo xam ne mbaax da leen di dérange bëgguñu gis lu baax moo tax nag nañ ko wattandiku bu baax lu bon dootoo mën a def lu baax boo xesee tàmm lu bon dootoo mën a def lu baax ci kaw suuf boo ko doon jéem sax doo ko mën moo tax yàlla nañ ci yàlla musal du foofu la yaamuru bil fahshaay wa yunka wa wal munkari mu ne wallaw laa na ngeen xam ne fadlullahi bu du toon ngéneelu yàlla aleykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërmandeem lii ñaata yoon la ko wax te lépp sayyidatuna Aïcha ta su du loon ngëneel yàlla mooy yonent bi nekk ci seen biir ak yërmande bu mu leen yërëm maa zaka kon maa abadan faw zaka dootul sell minkum ci yéen ku sell dootul jóge ci yéen li yëpp sayyidatuna Aïcha tax yàlla door ko ci suñ kaw yàlla ne bu dutoon sama yërmande ak rasulullaay mii ci seen biir danaa fexe ba ku sell dootul génn ci yéen ma zaka dootul sell minkum ci yéen ah lu ca topp min ahadin kenn kenn ku tukkee ci yéen ku baax dootul am abadan faw xam nga lii garaaw na yàlla ne bu ngeen bawul wax ju bon man indi ko terre ñu dégg ko yàlla ne suñ bawul tasaale lu bon ci réseaux sociaux yi yàlla ne suñ bawul weerante yàlla ne suñ bawul deflante lu bon di ko tasaaree nit ñi di ci teg seen bët ni na dinaa dem ba ku baax dootul juddu ci yéen commencé na te da ngeen dem benn bon moo leen di gënal lu baax nee na su dutoon sama yërmande nag te na ngeen def très attention yàlla mooy wax mu ne su dutoon sama yërmande seen jëf yu bon yi ak weerante bii ak yu bon yi ngeen di defante danaa fexe ba ku baax sax dootul génn ci yéen abadan faw dootu leen jur ku baax ñu bon rek mooy la yoon ci yàlla noox waxoon jëlee ko intazaruhum yadillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaran <laughs> gis nga ko mu ne ko yàlla bombardel ñëpp na ñëpp dee ndax boo fi bàyyee ñu bon rek la jur dootuñ jur ñu baax balaa loolu nag rey leen ñu dem yàlla ne ko danga ngaa jurut rek yow it ku jur yërëm ku jënd sakkanal juruma kenn waaye maa leen bind nag yow itam wala yaliju illa fajiran kaffaaran xam nga lu tax yàlla distingue rabbi yaxfir lii ja wali waalidayya wali man daxala bayti muminan moo tax yàlla distingué wu kon ma zaka minkum min ahadin abadan faw walakin li fi nekk allahu buur yàlla yu zakki mooy setal mooy laabal man koo xam ne képp koo xam ne yashaaw moo ko soob mu setal la ci ay bàkkaar baal la say bakkaar boole la ci nit ñu baax ñi ñu ne ko lu tax mu ne wallahu buur yàlla samiun mooy dégg ndéey yëpp du wax de ndéey ki dégg ndey kooku waxe noppi kiy dégg ndey ndey ki koy dégg kooku wax waxe noppi sami mooy ndey booy déyante sax maa min najwa foofa nga koy déggee ji maa min najwa min salaasatin illaa huwa wala xamsatin saadisuhum wala adna wala aksar maahumu aynama kuntu yàlla ne waxuma wax xam nga bu doon wax rek muuma muuma mucc kañ <laughs> yàlla kenn nu ko jaar fen alaaji taala jeex na ba noppi foofu laay yem yàlla kenn mënu ko jaar fen gis nga bu doon wax muuma mucc waaye muuma sax muccut ndey la wax ndey mooy xaatar xaatar bi jógee ci sa xol te làmmiñ mënu ko tudd yàlla ne xam naa loolu li nga xam ne tuddagoo ko mu ngi ci biir xol bi di baatare di baatare te tuddagoo ko yàlla ne loolu di xaatar di baatare yàlla ne xam naa ko mu ne lu ko raw sax xam naa ko wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid nee na buum su tuuti soo su takk sa xol bi sax te bu daggoon nga dee yàlla ne buum su tuuti soosu maa la ko gën a jege wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid suñ borom ne maa gën a jege buumu xol bi takk sa xol bi te nga xam ne bu dogoon rek nga dee nee na buum su tuuti soosu li muy tuuti tuuti man yàlla maa la gën a jege buum bi moo tax najwa la wax mu ne amul benn ndéey ñaar toog di déeyante lu dul man yàlla maa leen ñetteel wa ma min waa min salaasatin la ñette moo tax ci sharia ñett mooy mbooloo ci xaqiqa ñaar mooy mbooloo moo tax sànq ma ne leen bu ngeen di ñaar rek mën ngeen fa ndax mbooloo ngeen xam nga lu tax xaqiqa bu xesee teew ngeen nekk ñaar ku ne am na ñaari malaaka yu teewaale raqib ak atib te xaqiqa ngeen di doxal ñoom dañuy ñëw teew bu dee sharia nag maandute mooy tax ñu bëgg ñett preuve moo tax ñuy bëgg ñett moo tax yàlla njëkkee ñett maa min najwa min salaasatin gisal kuy bañ lim lim ñëwaatul lima ngoog di maa min najwa amul kuy déey ak moromam di ñett illa huwa rabiuhum lu dul man yàlla maa leen ñeenteel wala xamsatin mu tëb rek dugg ci juróom bu ngeen di juróom mu ne wa ma illa huwa saadisuhum lu mul man yàlla maa leen juróom-benneel ñu ne ko foofu la mu ne déedéet mu ne wo adna amul lu gën a yées ñetti xanaa li yées ñett mooy ñaar ak benn wala aksar amul lu gën a bari ñi juróom-benn jëm milliard mu ne lu dul illa lu dul rek maa ahumu maa ngi ànd ak yéen ñu ne ko fan mu ne ay na maa kuntum beneen bi mu ne ay na kaanu ay na maa kuntum walaw kuntum fii burujin mushayyada moo tax làqatu fu kenn dut gis moo tax mu ne ay na kuntum ay na maa kaanu foo toog di waxtaan a tax muy wax waaw summa yunabbi'uhum summa topp yunabbi'uhum leen xibaar nii ngay toogee di déglu journal yàlla na bés penc maa lay tegal journal bu leer nañ su mayu nab um mu ne maa leen di xibaar bi maa ca la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen ko ca addina taamalu na di ko jëfe yow mi daan publier réseaux sociaux yi maa lay publier tey fii ci àllaaxira kaay nga ñëw mu ne la yaa daan publier kaay publier sa bopp tey bësal bouton bii ah wa maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atib wa kullu insanin alzamnaahu taairahu fi unuqihi wa nuxriju lahu yowma alqiyamati kitaaban yalqaahu mansuuran iqra kitaabaka kafa bi nafsika alyowma alayka xasiba booboo gën a garaaw ci wax yi boobu gën a gën a tiital man oh. wa kullu insanin lam wax alzamnaahu fi unuqihi disque la benn oh, disque disque boobu moom la yàlla di génne ëllëg mu nekk téere kitaaban fii ci àddina disque la moo tax mu njëkkee ca bële ne la wa ma maa min qawlin illa ladayhi raqibun atid fii lañ tudd raqib atib boo duggee ba mel nakir munkar même personne bi la tur yee soppeeku fii la ñuy tudd raqib ak atib boo duggee ba bàmmeel ñu tudd munkar nakiir nga dem bés penc ci yàlla dégagé leen ne cassette laa soxla yéen da ngeen doon enregistré rek ay preneur de son ngeen woon ak image seen liggéey jeex na dem leen ngeen toog ndax mën ngeen wax ñu ne du man kaay Chérif Ibrahima nga ñëw mu ne kullu insaanin nit koo gis alzamnahu taa'irahu fii unuqihi maa ngi ko kastel téerim ci doxam ci loosam fii diggante mbagg yi bay na kata fay diggante ñaari mbagg yi fii ci loos yu gis nga bul bi fa la ko yàlla dóor muy enregistré carte mémoire la te neex naa gëm sa téléphone bi yaa ngi ca carte mémoire boo xam ne 20 giga la lu ne nga ciy def 36 giga 40 giga lu ne ngay enregistré lu tuuti la tey boo ko xooloon lu tuuti tuuti tuuti na waaye image bi bu génnee nga dóor ko ci écran bi rek daj na àddina wala déet yàlla ne yaa ko mën yow maa la ko dàq ñu ne ko noo ko defee mu ne kul insaanin nit koo gis alzamnaahu maa ngi ko dóoral taairahu téeréem fii unuqihi ci loosam wa nuxriju lahu danaa ko ko génneel yowmal qiyaamati bés peñ ci kitaaban yalqaahu boo xam ne dañ ko koy sànni baal ma alaaji taal xoolal <laughs> yàlla mën ku dekki rek daf ko naan ñu xeet ne ko becc ci sa kanam mooy bu avocat yi di ñëw tribunal bay toog si ci taabal gi gis nga noonu ñuy dóoree seen kayit yi ah yooyu yëpp pour tiital la di Serigne Cheikh Tidiane si nee na ñay àtte ñoo gën a jalgati waaw Serigne Cheikh ku doy waar la ñu ne ko lu tax bu ne àtte nit rek dafa jër sol robb bu ñuul ñu ngi wax nga sol robb bu xonq tepp ci ay bouton sol mbaxana mooy am cimbir cimbir ñëw jël sa carnet ne ko bëcc ci taabal bi boo bonjour mu ne ki ngay atte tiit na te dara xewagut te ki ngay atte war te tiit dafa war a conscient ndax bu tiitee rek mën na wax sax lu mu deful mu ne kon avocat yi nañ dindi seen robb yi magistrat yi dindi seen yu xonq yi ñu atte nit ki tout simple yeex na yowmal qiyaam nag yàlla nee na dama naan di roseet disque bi dóor ko muy livre ma ne ko bëcc ci sa kanam ne Cherif Ibrahima mu ne mu ne iqra kitaabaka jàngalal sa bopp sa téere kenn du la ko jàngal yaa koy mën a jàng-jàng mën a ñàkk a jàng-jàng ndax ñëppay xam keroog nga ne ko yàlla lii nag mu ne la kafaa doy na bi nafsika sa bopp alayka ci yow xasiban nga régler sa bopp tey yaay régler sa bopp kenn du la régler xamoo yàlla du régler kenn sëriñ Cheikh nee na nitay xool ba xam ne caacaay la def mu ne yàlla man nag li nga ma defal ci xéewal ak li ma may yelloowul la li ma la fayee dëgg-dëgg nag yóbbu ma safara rek benn yoon nee na nit a koy waxal boppam bo boromam yàlla ne ko kon xam nga loolu dëgg la mu ne waaxul mu ne booy waaxu ne mu ne malaaka yi pamte pamtee leen ko ndax loolu la mérité woo mu ne boo bu dee yiw nag danga koy jàng ba yiw yegg nga ne ko yàlla da nga baax rek waaye xam nga ne lii ma ko de sama yiw nga ma yokkal rek mu ne waaye yaa jéem yàlla fu ma jëm mu ne la fa ma la waxoon foofu moom da ngay tontu mu ne nga xool gis muy àjjana nga war a dugg am complex Serigne Cheikh ay wax de mu ne da ngay xam ne liggéeyoo ko ndax lu ne la nga liggéey xam nga ko mu ne dangay xool àjjana mu lix nga xool li nga jëf xam ne tolloowuñ liggéeyoo ko mu ne doo ñemee dugg dangay taxaw ci bunt bi di diit diital mu ne yàlla na malaaka yi tii leen téye leen seen loxo mu ne malaaka yi téye suñ loxo naan leen udxuluha bi ma kuntum taamaluuna waaw dugg leen yéen a ko liggéey mu ne xam nga noo koy déggee Serigne Cheikh ay wax de mu ne xam nga noo koy déggee ñu ne ko déedéet mu ne da ngay am gan mu gane si la am comme si lekk si lekk nga ne ko lekkal fii sa kër la est-ce que moo ko moom waaye lekkal melal ni sa kër nga nekk bu dee tubaab yi ne fais comme chez toi fais comme chez toi melal ni yaa yaa ngi sa kër yaa ngi biir sa kër da nga ko bëgg a encourager mu firi mën a lekk waaye xam na ne kër gi moomu ko àjjana it kadalika ku fa dugg lig si ba fa nekk di nga xam ne liggéeyoo ko benn minute rek boo ko fa amoon sa liggéey jeex na danga war a génn benn minute boo ko defoon àjjana li nga liggéeyal yàlla jeex na danga war a génn ci biti moo tax yàlla ne déedéet man ëpp naa loolu uduxuluha dugg leen àjjana bi ma ci sababu la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen ko ca àddina taamalu na di ko liggéey yéen ko liggéey dugg leen ñu ne ko yàlla mbaa buñ duggee fii duñ génn a mu ne déedéet xaalidiina da ngeen fay sax fiiha ci biir àjjana abadan faw ñu ne ko lu foofu la ñëwee mu ne déedéet laa yabaruuna du ngeen fa dégg te du leen fa jot anha ca àjjana xewalan ak coono du ngeen ko fi amati jeex na fa fële mu ne laa yasmauna fiiha laxwan wala kizaaban du ngeen fi digg po mu di tànqal doo wax kenn weddi la am na dëgg amul dépense kenn du joxe dépense mooy ay jeex na kon nag mbokk yi ñu taxaw foofu walaw wala waaw abadan fa hmm? waaw kañ wallahu samiun alim du foofu lañ yem waaw kañ wallahu buur yàlla samiun mooy digginde yëpp alimun moo xam jëf yëpp li ci biir dënn yi yàlla ne maa ko xam jëf yi ngeen di jëfit maa xam moo tax mu ne na rafet rek waaw na rafet rek looy def yàlla xam na ko looy def ci kaw suuf rek yàlla xam na benn benn du ma tudd turam may ñu julli te dégg naa ci làmmiñu Serigne Cheikh mu ne nitu yàlla pire la mu gi te ku ko gënoon a woyu gisuma ko te loolu gis nañ ko ba tàyyi te dina ñëw ci biir saaru yi dina ñëw waa ji daan ma dem ci armeel yi sax di sulli néew yi jigéen yi ñim xeme moon di tëdd ak ñoom ba bés mu am ko muy waxtaanal ci kaw lax damay bañ a tudd tudd kilifa gi pour ñu xam mu ne ko am mu ñun bàkkaar yi ñuy def boobu yàlla namm na rek mu tuub alaaj wallaay nii ma ko xamee laa leen xamee mu ne ko diw mu ne ko waaw mu ne ko ñun bàkkaar yi ñuy def yëpp est-ce que yow lañ koy def xool nga fi mu njëkkee yow lañuy def bàkkaar bi mu ne ko déedéet man mënoo ko def mu ne ko kuñ koy def mu ne ko yàlla mu ne ko yàlla ku ko tuub ku baalu mu baal la mu ne ko mu ne ko man xamuma woon ne gravité bàkkaar yëpp yàlla lañ koy def dama foogoon ne ñu ni neen la seetal mu ne ko ndikki bàkkaar buñ mës a def yàlla lañ ko def mu ne ko waaw ndax yàlla moo ko tere nga def ko kon yàlla nga ko def ci la doxee tuub tabax na jàkk wut daara di jàngale daara je man naa xam naa ñu ca génn tey ñu ngi fii dakaar yor seen teranga ba nim génn àddina te lu ne def na ko ci kaw suuf yàlla ko tuub rek la xam te bañ a nekkit falaatu zakku anfusakum balillahu yuzakki man yasha yàlla ne bu leen nekk rek di jaay pirité man maa set maa sell maa baax yéen a tilim nukk yéen a mel nii yéen mel nale yàlla ne falaatu zakku bu leen di sellal anfusakum seen bopp bal li fi nekk allahu yàlla buur yàlla yu zakki mooy sellal man yashaaw ku ko soob bàyyi leen di sellal seen bopp bàyyil ba yàlla wax la ko boo lëgee ku yàlla joxañ ne ko sell nga rëcc nga waaye toog fii yaakaar ne yow yaa mel nenn nit ñi ñi meluñu dara ku ko ci def yaag yàlla la yal nañu yàlla dolli sutura te ñuy suturaalante rek na ñuy suturaalante amante teggin amante yar kenn ku ne du suturaal moromam boo xamee ci sa morom lu jaaduwul sax ngir yàlla bu ko wax ngir yàlla bu ko wax ndax am nga ci sa bopp loo xam ne bëggoo ku ko yëg te ku suturaal jaam yàlla sutural la kon nag niñ nëbbante ayib yi tey waxlante yu baax yi yu baax yaa ngi fi am pagay ñun ñëpp a ngi ciy teg suñ bët kenn koo gis mu def safaan mos naa def yiw tuddal yiw wa te bàyyi safaan bi xamoo bu ci yàlla nangu yal yàlla dooli sutura alaaji taala yal nañu yàlla defal jàmme àddina ak àllaaxira ba àjjuma bii di ñëw incha allahu bi mahdi fadlillahi wa juudi wa karami